asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen di dalal ci seen site d'information Sénégo tey nag ñoo mbégte di dalal ci seen euh, émission seen débat honorable député Moustapha Diakhaté Moustapha Diakhaté nekkoon ancien président groupe parlementaire euh, Benno Bokk Yaakaar ci douzième législature bi nekk également nit ku ràññeeku ci langue politique yi rawatina li nga xamante ne moom mooy position yi muy jël te mu dagal lool ñu ko fay wax. mu di ay positions yu courageuses mu koy jël ci télévision yi ci rajo yi ci euh, réseaux sociaux yi notamment euh, xam ngeen nag démb la conseil constitutionnel fësal li nga xamante moom mooy résultat yi tukkee ci élection euh, législative bi gannaaw bi nga xamante ne commission nationale de recensement des votes na ko le résultat provisoires mu ñëw confirmer loolu ñu invité ko tey ngir waxtaan ak moom ci loolu ak li nga xamante ne moom moo war a doon taxawaayu quatorzième législature bi Moustapha Diatta ñoo lay nuyu. maa ngi lay nuyu monsieur di nuyu ñi ngeen bokk liggéey bi yëpp Sénégal di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi nuyu seetaan tey ñaan yàlla waxtaan wi ñu wax fi dëgg tam am njëriñ. alors très bien euh, honorable gis nga ne li nga xamante ne moom mooy conseil constitutionnel démb fësal na résultat yi tukkee ci élection législative bi gannaaw bi ko commission nationale de recensement des votes publié. alors avant loolu amoon na ay xëccoo ci ñi fari ci kujje gi ak pouvoir bi ndax gis nañ déclaration bi Aminata Touré def ne gagné nañ lu toll ci fanweeri département euh, Barthélemy Dias feelu ko daal di weddi li nu mel mu mel ni xëccoo amoon na mais bi ñu publier résultat yi ba mu dem conseil constitutionnel gis nañ ni recours amul lu mooy recours euh, coalition naataange bi ndax loolu amoo ci mbetteel. Euh, ok non seulement dama ci am mbetteel mais dama ci am naqar parce que dama jàpp ne réew mel ne Sénégal nga xam ne ci ñaar fukki ñaar. def nañ ci ñaari alternance démocratique maanaam folli nañ fi ñaari président fol fi ñaari président dëkk boo xam ne réew moo xam ne euh, gouvernement bi mën naa perte toll na région Cap-Vert ñaari departement ci Thiès région de Thiès ñaari département région de Diourbel ak toute la région de Ziguinchor réew mu mel noonu normalement war nañoo weesu di werante ci mbirum élection c'est pourquoi li jëkk li jiitu mooy coow li fi amoon ba ñett nit faatu ci je crois que très sincèrement ñett ñooñu faatu ci mbirum élection ñoo war a nekk ñett ñi mujj faatu ci affaire élection au Sénégal ndax Sénégal weesu na fu nit di war a faatoo pour ay élection ndax euh, sàccum élection kenn mënatu ko et ça ne date pas d'aujourd'hui c'est depuis 1992 malheureusement nag classe politique bu Sénégal maanaam ñi nekk au pouvoir tey ak ñi nekk opposition démb ñoo baaxoo fu élection jube rek dañu mel ni ñu jëfur di wax waxi tooxi doona di woo nit ci fitna alors que fondamentalement jëru ko parce que tey keroog bisu wote bi le 31 li ñëpp seetlu mooy nit ñi dañoo dem wote ji calmement ah bi résultat pratiquement avant min minuit kenn ku ne xam nañ fa nga gagné moi personnellement lundi premier août à 14 kenn ku ne pratiquement lu mu am xamoon naa ne Benno Bokk Yaakaar am na 82 députés xamoon naa ne boo boolee yeewee wala li ñu am du weesu 80 li ma doon jaaxal mooy les plus forts restes kan kan lay doon ni ma ko xamee nag man Moustapha Diakhaté kese ni la ko parti politique yëpp xamee woon donc en gros vraiment coow liñ ci doon coow aussi jëru ko maintenant xëy na ñun waa Sénégal noo amagul mat gu toll ne wóolu suñu bopp parce que nag ñaare kuy yàq dërëb euh, processus électoral soo defee ne parce que pouvoir bi ngay yàq wala ci opposition bi c'est que dërëb Sénégal ngay yàq parce que bu ñu demee ba naan Sénégal ña ngi fay jiiñante fraude c'est que loolu deret Sénégal mu jàpp te jàpp naa ne wax dëgg yàlla war nañ koo weesu daal. ñu ngi doon séntu ay recours gannaaw bi euh, opposition bi taxawee ci mel ni ñoom mandataire euh, Déthié Fall dem pour vérifier li nga xam ne moom mooy procès-verbal ñu xañ leen koy tout ça ñu dem ba ci cappaandaw ga ñu ne amuñu confiance ci euh, conseil constitutionnel pour mun a déposer recours defuñu ko ndax loolu nga jàpp ne amul leneen lu ci laxasu. c'est des éléments de langage. c'est dañu amul luñ jox conseil constitutionnel du bi ñu di ci élection yi ñoom defoon nañu recours conseil constitutionnel ci problème mu <laughs> seen liste paritaire bi Dakar. kon ne wóoluwuñ ko waxuñu dëgg dañoo am lu fa yóbbu parce que xam nga euh, contestation élection ci bureau de vote yi lay tàmbalee maanaam les PV yi nekk ci bureau de vote yi foofu boo gisee loo loo la jaaxal foofu nga koy bind boo ñëwee ci commission départementale bi nga bind ko door a ñëw ci commission nationale bi c'est que amul benn procès verbal bu am ci élection yi ci benn bureau de vote boo xam ne bind nañ fa ne élection yi fi ni jaar waru noo jaar kon en gros Yewwi Askan Wi li ñu doon wax du waxi dara ñoom sa bopp xam nañ ne waxuñu woon dëgg dañ doon dañ dañ doon fëndal rek quoi à la limite nag loolu moom jàpp naa dafa war a jeex quoi parce que nag quand même Sénégal mënuñu xeex démocratie ba mu agsi fii ay nit ñàkk seen bakkan ay xale yoo xam ne bi ñuy xeex xeex bi kenn gisu leen woon ñu ñëw di bë di bëgg indi ay fitna ci dëkk bi loolu dafa war a jeex. Eh, honorable dagguma lan mooy sa problème justement ak euh, intercoalition parce que gis nañu également ci sa ci sa voilà foofu foofu laa bëgg a ñëw justement. code bu la neex nga ubbi doo ca gis intercoalition Sénégal ñiy bokk ci élection yi soit parti politique la doon wala coalition soo bëggee coalition da dem déclarer ko ministère de l'intérieur jox ko ne nii la tudd dem CDC déposer sa caution ci turu sa coalition dem wuti say parrainage ci sa coalition ci coalition ji ngay dem élection kon ñoom li ñu def alors non seulement dañu violer code électoral bi mais aussi dañu wor même ñu ñu ko parce que nag bàyyi ba nit ñi déposer le 8 ba ba pat déposer di boole seen i liste mais ça di dem Coupe d'Afrique des clubs des ak Sénégal ak coupe d'Afrique des des vainqueurs de coupe ñaari équipe yooyu ñu ñu ne bu ñu kuy joué ji dañuy boole suñu suñu meilleurs joueurs yi nga dem joué ji. mais mais est-ce que est-ce que est-ce que loolu tamit honorable mën nañ leen ko reprocher à partir du moment où ñoom bi ñuy teg seen stratégie boobu ñi ñi jàkkaarloo ñoom ñooy gis lu mel noonu di ci di ci gën yàlla yi naan lu la yoon terewul mais déedéet xam nga code électoral moom lu mu la mayu ci élection rek waroo ko def or il n'est pas prévu d'intercoalition amul sax day dañ ne ko bi conseil constitutionnel di publier résultat yi waxul waxee rek inter intercoalition mais tappale yi ñu def ba boole ay ay ay seen liste yi xëy na moo tax sax liñ am ñu am ko mais loolu xam nga loolu il se trompe xam nga loolu dañu trompe seen bopp parce que électoralement le PDS mënut a weesu douze députés au Sénégal le PDS électoral mënatul douze députés. wa xanaa wàllu tax ngay wax loolu. wàllu laa wax mooy wàllu parce que wàllu c'est le PDS ay ñaari nit dafa rax na même boo gisee yeewi score bi ñu am du seen score score score bu ñu gonflé la quoi yooyu nag nax sa bopp la mais aussi war Sénégal yi parce que damaa jàpp ne koo xam ne da ngaa bëgg da nga da nga ne Macky Sall dafa baaxul dafa jubadi day sàcc day mais yow sa bopp da war a góorgóorlu ba doo def lenn loo xam ne du lu baax or li c'est une grosse escroquerie politique musul am ci àdduna. mais loolu nga baal ma honorable rëkk-rëkk yi dafa mel ni bëri na ci scrutin bi jàll élection yi jàll. parce que buñ rëkk-rëkk yi parce que buñ demee également ci euh, confection liste yi. ñu dem ci li nga xamante ne moom mooy euh, liste bennoo bi ñu bàyyi liste titulaire yi mu dem suppléant yi ñu éliminer vice versa boo demee côté opposition bi est-ce que tamit loolu du loo xam ne waroon nañ ko dénoncer. loolu jëkku ci jëkku tam tey. 2014 man maa nekkoon le superviseur du département de de Benno Bokk. mais est-ce que noonu la war a demee. Ah, xaar maa ngi dama lay wax li war a demee am kay mooy li euh, Yaakaar dafa porté woon dafa dafa dafa defoon recours contre la liste du que seen seen titulaire yi dafa amuloon parité. cour d'appel de la liste de de, de, de du ñëw attaqué ko au niveau de la cour suprême cour suprême ne li baaxul lay supprimer maanaam les titulaires lay éliminer. bàyyi fi suppléants yi suppléants yooyee 2014 PDS am na ci sept conseils kon li mu def ci listu Yewwi defoon cour suprême defoon na ko 2014 ci listu PDS li cour conseil constitutionnel def ci listu Benno cour suprême defoon na ko ci listu PDS en 2014 cour suprême lu mu sañ a def conseil constitutionnel waxi noppi kon encore gura ñi naan musta am waxuñu benn dëgg amoon na Sénégal 2014 mille moom malheureusement xam nga. ginnaaw ñu bari bu ñu def politique dañ ci dul ragal yàlla maanaam xëy na dañ jàpp ne nit ñi xamuñu ñu di leen wax loo xam ne dara du ci dëgg maanaam. mais honorable dëgguma amoon na 2014 mais est-ce que loolu la code bi wax exactement ne dañu war a dissocier ñaari liste droit xam nga déjà que le fait que mu am te dindiwuñ ko rek loolu day nekk jurisprudence désormais xam nga désormais Sénégal le principe de la pluralité des listes moo am fi mu ne désormais loolu moo am Sénégal tant que code électoral dindiwu carrément c'est-à-dire fu ñu waxatee liste électorale rek bu dee amee suppléant titulaire dañ jàpp ne ñaari liste la def fi loolu moo am Sénégal fi toll xam nga man ginnaaw man du ma juriste li ko li cour suprême defoon 2014 conseil constitutionnel defaat ko 2022 dama loolu la jàpp ne mooy yoon ba bañ koy dindi. mais mais bu ren bi justement ñu bëri dañu jàpp ne dañ ko def parce que. non non xam nga gi xam nga xam nga xam nga li wolof di naan fu ndax mbaax na doone benn ginnaaw yoon dara tegul ci kawam xam nga conseil constitutionnel bu xasee wax amul recours. comme 2014 aussi amul woon recours parce que cour suprême mooy dernier palier bi nga mën a def pour pour attaquer ko kon li mooy Sénégal désormais liste titulaire ak suppléant ñaari liste la muy muy majoritaire comme comme aussi liste nationale. kon encore une fois euh, euh, waa Benno bu ñu ne tey du ñu dem cour suprême parce que wóolu euh, conseil constitutionnel duñ fa duñ ko wóolu bëkk dem rek demoon nañ fa ba mu jox leen dëgg dëgg ku jaaxal ñëpp nag ci Ndakaaru parce que liste Ndakaaru bi moom bu ne mënoon naa jàll ba mu des moom c'est c'est une liste qui pas paritaire waruñu ko. ndax problème paritaire bi ñu avancé justement ci euh, li nga xamante ne moom moo xew démb mooy ralliement Pape Diop ñu bëri am ci surprise am ñoo xam ne aussi amuñ ci surprise parce que am na fu ñu fu ñu ko caricaturé woon ndax bokk nga ci ñu am surprise boobu. ah déedéet man bëgg démb am na si <laughs> yenn confrères yu ma leen waxoon ne du ma ci Macky Sall loolu moom xamoon naa ne mënta ne li ma doon bett mooy Pape Djibril Fall demoon ci Macky Sall loolu moom xam naa ne mënta ne waaye euh, Pape Diop mu fekki Macky Sall moom wax dëgg yàlla. mais mais niru naa deal ci bopp sénégalais yu bëri ah. non xam nga euh, Pape Diop d' abord for plus fort la ko yi jox jàpp naa ne électeurs ya ko wateel ñoom loolu du leen def problème maanaam ña ko wateelut nag bu ñu def problème bi problème parce que seen problème. mais honorable affaire bi mel ni da nga bëgg a jël à la légère. te moom bi muy battre campagne côté opposition bi la battre campagne loolu moo tax également ñu jox ko suffrage a luur mooy mooy euh, trucage bi waa Yewwi def ak waa Wallu escroquerie politique bi ñu def ba tudd ba tudd seen bopp intercoalition. non mais mais loolu loolu defe naa wax nañ ci ba pare mais mais mais mais mais kaw. ñoo bëgg indignation qui sélective Pape Diop moom moom boppam ay partiem la yor ami responsable am am coalition la yor waa coalition bi jàpp nañ ne ànd ak Macky Sall moo gën ñoom defe nañ mooy njariñu réew mi. nañ leen bàyyi sañ-sañ boobu ni nga xam ne maanaam li ci li nga xam ne moom lay jàng ci globalement ci ñetti ñëpp ñetti député yooyu mooy Ousmane Sonko mi waxoon ne ñoom Thierno Alassane Macky Sall la ñuy liggéeyal jàpp naa ne tey histoire dab na ko war naa xam ne waxul woon dëgg. est-ce que est-ce que au contraire amul dëgg si ñoom. Ah? est-ce que au contraire Ousmane Sonko amul dëgg non non ki nga xamante ne moom mooy Pape Diop parce que dafa wax sànni noonu ne. la mu ne bu dul moom wàllu ak yeewi dañuy liggéeyal Macky Sall du dëgg. bu ñu doon liggéeyal Macky Sall bu fekkee Thierno Alassane doon liggéeyal Macky Sall kon day day fekki Macky Sall a magal rek bu fekkoon ne euh, Pape Djibril Fall da doon liggéeyal Macky Sall kon euh, kon day kon mu dellu ko ginnaaw ñett la ñaar ñi moom weddi nañu ay waxam ay waxam du dëgg liggéeyalu ñu kenn seet loolu ay sos la rek ay noo xam ne ay sos la yum def pour yàq derub jàmbur na leen ñaar yoon nag benn un mooy li wax wax na leen lu du dëgg deuxièmement tooñ na leen xëy na nag am na borom bopp yu woyof yoo xam ne loolu mën na leen yóbbaale mais encore une fois je crois que booy def politique te ne da bëgg a defar réew mi la nga war a moyu mooy di fen ak tooñ. honorable dafa mel ni plateau boo dem di nga attaqué Ousmane mais lan mooy problème lan mooy non mais effectivement. parce que wax xaaral ma il faut qu'on soit un peu sérieux moi j'ai mes opinions sur lui. su la naqaree bul du question du question constat la constat la honorable constat la yow nangu sa xam man dama xam Thierno Alassane bu doon Macky Sall da koy jënd kon kon duñ tàggoo. Thierno bañ ko nommé directeur de la RTP 15 millions la waroon na fayu mu mu mu wàññi ko di xuloo Macky Sall ci problème mu ba tax ñu tàggoo gor su mel noonu nga di ko xool naa ko Macky Sall ngay liggéey ko fenn a doon taxawaayu Pape bu ñu ñëwaatee ci cadre Pape Diop parce que objectif bu débat bi nekkuloon Ousmane Sonko peut-être da nga ko ciy glissé noonu ci li nga waxoon na ko yaa ngi wax ne man maa indi kii sax mais justement yooyu yaa def clin d'œil jéem dugg ci kaawu Ousmane Sonko mais bu ñu ñëwaatee ci ki nga xamante ne moom mooy Pape jo tey jii nii dugg na euh, mouvance présidentielle bi am na li xam ne moom mooy la majorité absolue bi nga xamante ne moom la soxla woon pour mun a gouverner tranquillement yi lan moo nar doon taxawaayu Pape Diop ci assemblée boobu. loolu moom xaw ma ko wax dëgg yàlla na muy taxawee moom xaw ma ko. parce que am na ñu koy séntu justement pour mu diriger nga xam naa ne ku am expérience assemblée nationale maanaam tey jii Sénégal yëpp Pape Diop moo ci ëpp expérience assemblée nationale surtout jiite ko. pour pour avoir ensuite mu nekk président assemblée nationale ensuite mu nekk président sénat loolu moom rek moo ko dajale ci mu toll nii kon kooku am na expérience jàpp naa ne bu demee bu demee ci ci Benno mën na leen amal njëriñ maintenant xamuma nag ban poste lañ koy jox en tout cas bu fekkoon ne Macky Sall daf may laaj ma nan ban ban nan laay naa ko def ko président de groupe def am na expérience bi. non seulement am na expérience mais aussi nit ku dal la or assemblée bi ñu jëm assemblée bu nar a métti lay doon kooku dafa laaj kilifa gu dal gu ubbeeku. goo xam ne dina mën a gérer contradiction yi ba assemblée mën a def liggéeyam quoi genre yooyu la quoi Pape Diop genre Moustapha Niass la quoi et je crois qu'il peut être un bon président de non seulement ànd naag Benno waaye xam na ne ku ne xam na ne Pape am na ki relation particulière ak waa PDS quand même je crois que même ñoom Khalifa Sall aussi am ak ñoom Habib Sy amut ak ay xaar ma yàlla yu war a tax euh, ñu am jafe-jafe donc bu ma doon laaj ne man kan ngay def jox assemblée nationale damaa ko jox Pape Diop parce que pour naa ne am na am na profil bi am na taxawaay bi pour mën a yor assemblée surtout ci contexte bii ñu toll quoi. très bien honorable gis nañ ne li opposition bi bëggoon te def ko cheval de bataille am ci euh, campagne bi ñu jàll mooy cohabitation politique daanaka wax nañ ko fu ne tey jii nii gis nañ du mun a antu ndax opposition mouvance bi am na la majorité absolue est-ce que échec ngay jàppee li ñu mel wala. non non non non mënu ma ko jàppee échec parce que quand pour la première fois dans l'histoire du Sénégal opposition am 83 députés à l'Assemblée nationale. ah loolu mu sam loolu du échec loolu koy ndam lu rëy rëy la. 83 bu ñu boolee yeewee. waaw waaw yëpp laa boole rek dama boole ñi opposition bi ñu dul benn benn laa génne 82 ñële ma boole leen. kon wax dëgg yàlla loolu c'est historique au Sénégal li ma jàpp mooy opposition def na jéego bu rëy maanaam jéego bi nag leen rek moo xajamal escroquerie escroquerie bi nekk ci diggante yeewi. te loolu daal escroquerie nga koy tuddee est-ce que du stratégie également boo xam ne moom moo porté ses fruits. stratégie d'escroquerie. stratégie la effectivement tactique la mais sur fond d'escroquerie alors loolu xam ne yow loolu kenn waru ko def donc pour dire que vraiment opposition def na effort bu bu mag a mag nag ñoom dañu ne woon bu ñu demee assemblée dañ koy defaraat ah am te kon indiwuñ programme ah léegi nag euh, li ñu naan gumba euh, gumba neex yom na neex na baat jant sona léegi Sénégal daañu leen xool ba xam ban njariñ la ñuy amal assemblée nationale. boo xoolee configuration actuelle bi opposition muy mouvance tout ça ndax am nga yaakaar ne. quatorzième législature bi. mën na li ma jàpp kay mooy day mën a yées waaye mënut a gën. mais écoutez ñetti coalition yi am yi ëpp lu ñu ëpp ay député kenn ci ñoom amul programme Benno amul programme Benno programme Macky Sall maxal Macky Sall lañ doon indi d' accord war na ñoo mën a wax bilan Macky Sall waaye bilan Macky Sall nag doo ci yem da ngay xam nañ ne assemblée am na ay jafe yu mu am. parce que depuis deux mille depuis deux mille douze ñoo ko yor jafe-jafe yooyu dañoo waroon indi proposition ñun bu ñëwee lii ak lii dañ koy réformer assemblée nationale loolu jàpp naa ne waroon nañ ko mën a def ñoom wallu yeewi askan wi indiwul benn programme dañoo toog ba campagne bëgg a jeex ñu dem génn génn ci assise nationale séenari boole loo xam ne taxale ko tudde programme boo ko lii rek xam ne ki ko bind sax xamul fan xamul lan mooy Euh, assise nationale dajale ko waaye boo xoolee boo ko lire rek sa yaram day daw da nga xam ne ñi xamuñu xamuñu fi ñu jëm mooy fan muy assemblée nationale bu ci des mooy wàllu ah defuñu indiwuñu programme benn Benno Bokk Yaakaar mi yor fukki at ak fukki at assemblée nationale soppiwu ko PDS mi yoroon assemblée nationale fukki at ak ñaar soppiwu ko Khalifa Sall bi nga xam ne parti bi mu bokkoon am nañ yor nañ réew mi ñeent fukki at soppiwuñu assemblée nationale kon wax dëgg yàlla man du ma xaar dara ci ñoom du xaar xaaruma ci ñoom dara parce que xam nga man assemblée man xam naa lan moo ko dal mais li ko dal ñoom ñëpp kenn tudd ko ci. li ko dal xam nga damay wax toujours ne assemblée ñeenti liggéey la assemblée am la représentation nationale le vote des lois contrôle l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques gis nga ñeenti benn bu ne dafa la jumtukaay goo xam ne député bi daf ko war am war ko am ma député amuñu ko parce que pour nga mën a représenter mais da ngay mën a dem ci moom di ak moom di xam ay soxlaam door ko mën a waxal. mais assemblée député Sénégal joxuñu ko jumtukaay yu ko mën boo xam ne député la diaspora ñaari biir leen lay jox début session ak fin session c'est-à-dire la jox octobre toog ba mois de juin ñu la nga delluwaat diggante boobu doo fi gis euh, ñi ngay représenté bu dee Sénégal député bu demee ci ci département am këram lay toog ku àndut ak moom doo ñëw këram kon nan la mën a xamee as soxla soxla ji des moo tax toujours may wax ne dañoo waroon a fexe ba assemblée bi dans chaque département ñu créé fa une maison du député su ko defee askan wi képp koo xam ne da nga am soxla ci député nga mën a ñëw foofu parce que foofu ñëpp ko bokk état ko moom fekk fa ay nit nga wax sa soxla su député bi ñëw ñu wax ko ko su laajee mu recevoir mu recevoir mu recevoir mu euh, président la République nga fekk département préfet mu représenté président de la préfet mu représenté président de soo demee magistrature yi département boo dem bu ne da nga fekk ay tribunaux assemblée rek mooy institution boo kon ma jàpp ne tey waxoo fexe woon ba chaque département ñu créé fa la maison parlementaire euh, kër député su ko defee nit ñi di fa ñëw di fa wax seen soxla jàpp naa ne boobaa euh, député bi dina mën a représenter effectivement popula peuple bi ci au niveau de l'Assemblée bi ci des mooy wote euh, des lois wote des lois yomb ni ko foogee dafa laaj xarañ mën ngaa am agrégation te doo xam loi su ko defee bu ñu wutoon ay borom yi nit ay techniciens ñoo xam en matière de rédaction de loi ñu nekk ak député di leen di dimbali bu loi bi ñu wan leen ko la ca baax ñu wax leen ko la ca baax. mooy treizième législative bi def nañ ci un pas en avant parce boo xoolee les assistants parlementaires. assistant parlementaire amul assemblée assemblée la fa am mooy ñoo xam dañuy bind les rapports des commissions xam naa ko baax assistant amul. da nga jàpp ne assistant yi ñuy tudd noonu. dañ koy pour amuser la galerie quoi loolu député li mu soxla loolu. léegi tey ñu par exemple ba li ma la wax euh, ci wàllu loi l'objet de am laaj war nañu mën a fexe ba wutal député bu ne au minimum trois trois yoo xam ne yow yow député bi kese ñu di la jàppale liggéey loolu bu ko doon def député a xam loi yi di mën a gën defar ay amendement. di mën a ñooñu li a fay fu muy jógee. mais ci état bi lay jël xam nga li bon mooy ngay na. lu mu c'est pas c'est bariwul c'est c'est pas beaucoup parce que borom ñi ngay liggéeyloo ay sénégalais lañ la ñuy gagné day tax député bi gën a mën a def liggéeyam maintenant milliards ñu ne la 6000 milliards war ngaa xool ba fu mu dugg fu ne nga xam ko waaye loolu benn ko bu di bu ne na nga xool ba xam ndax fi mu dugg amal na njariñ askan wi loolu benn député mënu ko moo tax may wax ne dañoo waroon a créer un office parlementaire d'évaluation de contrôle

mu créé mu nekk une un office parlementaire d'évaluation de contrôle et d'évaluation des politiques publiques su boobaa assemblée nationale dërëm fu dugg fu ne dina xam fan la dugg fi mu dugg fa si dina xam ndax amal na njëriñam réew mi loolu bu ñu ko defoon assemblée xar kanam dana soppiku sénégalais yi dañu xam ne amal na leen njëriñ waaye fondamentalement tey bu la sénégalais waxee seen dëgg depuis 1960 assemblée nationale amalut njëriñ sénégalais yi et malheureusement Euh, loolu tant que tant que situation bi changé wul dara du dee. yaa ngi def suggestion justement peut-être euh, bu ñu la seetaanee loolu mën nañ ko prendre en compte. non déjà que ñun man ba ma fa nekkee defar nañ fa benn règlement intérieur boo xam ne ak 200 recommandations benn règlement intérieur ko man maa ko defaroon ñi ma ko financé woon mooy OSIVA ak Forum Civil 200 bu bees ak 200 recommandations waaye bi ñu paree liggéey bi ay saytaane dem naan Macky Sall way Moustapha Diakhaté dafa bëgg nangu président palace président Moustapha dafa bëgg ay da ko coow commencé bari président ne ma bàyyil coow li ma ne ko baax na su mandat bi jeexee man bu ma fi dellu si waat dootuma ñëw assemblée. très bien honorable xam naa la ñu dese ci temps bariwul ñu avancé tuuti wax ci li nga xamante ne moom mooy élection au conseil di ñëw defe naa mois de septembre bi la le 4 gis nañ sortie bi ku jégi def ne da koy parce que c' une institution budgétivore à l' instar euh, du conseil économique social et environnemental <laughs> koy jàngatee. bon <laughs> xam nga dama dama nga may rek ma fàttali mbirum HCT fan la jógee. gis nga bi PDS yore réew mi jamono jooju Ousmane Masseck Ndiaye moo nekkoon ministre de la décentralisation euh, maire yeeg président communauté rurale ak président conseil régionaux yi dañoo waxoon sàkk woon ci état bi mu mu créer benn institution boo xam ne ñoom rek ñoo fay nekk les hauts conseils kii les collectivités territoriales pour ñu mën di xalaatal état bi ci mbirum décentralisation benn uñ UEMOA dafa sàkku ci état bu ne ñu créer benn institution boo xam ne waa dañ koy dijji exclusivement aux collectivités territoriales loolu mooy deux trois les assises nationales dafa recommandé woon pour ñu créer institution boo xam ne ay collectivité territoriale rek ñoo fay nekk ñeent la CNRI dafa waxoon président Macky Sall ne ko na nga nañ créer leen na nga créer benn institution bu benn institution boo xam ne ay waa collectivité territoriale ñoo fa nekk kon cosaan bi war naa tax un PDS du wax ne nañ ko di parce que ñoom ñoom lañ ko jëkk a tàmbalee deuxièmement c'est assise nationale xanaa kay xali xamuma waa PUR ak waa Yewwi moom waa Pastef wóoru ma waaye Khalifa Sall moom xam naa ne le parti socialiste ci parti socialiste gi mu bokkoon est essentiel ci assise nationale kon xaaral maa rek kon waruñu woon a ne nañ ko dindi maintenant li am solo nag mooy euh, institution bi dafa am ñaari rëq-rëq yu ci nekk xam nga cent personnes la président euh, président bi di nommé 70 yi loolu moo jaaduwut président bi aussi mooy nommé président ma jàpp ne li ñu waroon def mooy 150 yëpp ñu di leen tal. leen di président bi aussi ay collègue am di ko fal au lieu que bi di ko nommé je crois que yaari ñaar yooyu la ñu waroon a proposé maanaam soppi au HCT la ñu waroon a proposé au lieu ñu naan dañ koy boycotté c'est une institution budgétivore je crois que loolu ay ay lay la xaaral ma rek ay lay élément de langage la parce que xam nga lu tax bu ñu demoon élection bu ñu demoon élection lañ doon wax nit ñi te du dëgg naan ñoo gagné élection locale yi day fës parce que ngi ci loxoy Benno Bokk Yaakaar tey ay lay lay d'après d'après li nga jàpp d'après li ñeneen jàpp mais est-ce aussi amuñu raison quelque part su fekkee ñoom au début ils étaient d'accord ñu dem ba ci biir expérimenté ko gis ne lii amul rentabilité bi ñu soxla woon maanaam impact positif boobu. ma la wax xam nga man d'accord naa ci ni mu war a mel melu nii waaye damaa jàpp ne réformer ko moo gën ne nañ ko tas je crois que lu dama ko dama sama lii laa xalaat rek am te kon nag am nañ droit ne effectivement elle est budgétivore parce que njariñ bi mu war a am des na. et d'ailleurs même les rapports yi muy génne pour man d'accord d'accord waruñu ko rek yemale ci président de la yi ni ko war a joxe président noonu la ko war a joxe assemblée nationale aussi pour aider les députés à réfléchir sur la décentralisation kon dama jàpp ne defaraat ko moo gën xëy na sax di ko di ko ne nañ ko dissoudre parce que dissoudre moom ku ne mën na ko waaye ku ne war naa wax nañ ko dissoudre ba mu des waa PDS parce que ñoom ci mel waa taxawu Sénégal encore une fois mais nag sénégalais moo mel noonu xam nga ay éléments de langage la parce que bu ñu demoon élection moom 80 pour cent des des des conseillers Benno Bokk Yaakaar moo koy gagné. loolu nga jàpp rek honorable. jà jàpp ma ko dama koo xam mooy mooy résultat yi. <laughs> ñu ngi lay jaajëfal temps bi ñu amoon euh, jeex na ñu bàyyi la rek nga tàgg. waaw maa ngi lay gërëm ci invitation bi di sant yow ñi fi nekk yëpp. fekkee liñ fi wax ba am nekk na dëgg te am njëriñ ñu sant ko yàlla subhanahu wa taala buñ ci jumee ñu ngi ñaan Sénégal yëpp ñu jégal mbokk internet yi ñu ngi leen di jox dig daje àjjuma bi di ñëw ci beneen numéro seen débat fii ci Sénégal